assurance Ousmane Sonko il est déjà en place dañuy xaar a démarrer li nga xamante ne moo di déclaration de presse président de Pastef ak député bi à l'Assemblée nationale gannaaw rek bu ñu munee li nga xamante ne moo di immunité parlementaire bi Ousmane donc après la convocation ak les réceptions donc on va indi micro bi waay Issa prochaine fois mu ko jël comme annoncé par ses avocats de cette déclaration de presse Issa. a déjà démarré du ma la jël ñaari de. jël ngeen sama place sax ah mënuma teg sama feuille bi tellement li benn il faut chercher une grande table. permettre le téléphone mën nañ door. c'est bon. mbokki Sénégal man président Ousmane Sonko ma dellusi fas yéene séq ak yéen waxtaan bu gàtt bi mujj xawoon naa gudd tuuti waaye lañ ca waroon wax moo ko jaroon. di leen gërëm leen sant yéen ñi seetaan ñëpp di gërëm it suñu mbokk journaliste yi fi teew tey di doore sama wax ci ñaari wax yu am solo yoo xam ne benn boroom xam-xam bu ma seet si fan yooyu daf ma ko wax ne ma ci jamono jii nga toll ku la ne waroo wax danga war a noppi du sa mbokk ndax ña ko daan def ba wax bu jotee waxuñu toll nañ fu ñu bëggee wax mënuñoo wax ñaareel bi mooy ku la topp di la puus naan la li tubaab wax j'ai confiance en la justice du sa mbokk ndax boobu foo koy wax day fekk mu am justice bu indépendante surtout nag bu dee dossier boo xam ne dafa am cëslaayu politique may yokk ci ni ñun de wóoluwuñu justice su waaye wóolu nañu ay magistrat ci biir justice Sénégal ndax lii histoire senegal Sénégal dafa biral ni musuñu fee gis dossier boo xam ne politique da cee fës justice àddu ci ci ñoo xam ne wute nag ni pouvoir exécutif mooy ni ki jiite réew mu bëggee su amee it ay exception la moo tax ñu ne bëri na ñoo xam dañ daan il faut ñu wóolu justice ñun de wóoluñu justice te loolu dañ ko am firnde yu wóor yi ko teg waaye ci biir justice wóolu nañu ay magistrat ndax foo dem di fa gis ay nit ñoo xam dara mun leen këf dara mun leen yóbbu ñuy def waxtaan bi loolu ubbi la woon di ko jagleel sénégalais yépp waaye rawatina ñi nga xam ne nag dañuy suñu soppe ñu jaral leen lu bëree bëree bëree bëri waaye di ko yaatal nag ndax tool nañ foo xam ne sooy wax opinion bi yépp ngay waxal ñépp lay déglu ku la bëgg ak ku la bëggul ku ànd ak yow ku àndut ak yow ñu ciy sant yàlla nag bu ñu yàlla yóbbee ba foofu ndax juróomi at ci gannaaw rek wala juróom benni at ba ñuy door kenn xamuñu ci senegal di leen wax nii yéen sénégalais yi tey bu ñu toogee fii di waxtaan ak yéen seen njàmbarte moo ñu ko may ñun seen parlu moo ñu ko may waaye seen jàpp bi ngeen jàpp ci suñu xeex moo ñu ko may ndax su dul woon loolu rek defe naa lundi huit def na léegi presque léegi mu def weer bu dul woon seen taxawaay lundi huit googu la ñuy jël Ousmane ko ne ko caax tey duma toog fii di waxtaan a yéen ñu leen ciy gërëm di leen ci sant ndax loolu kóolite gu mag la te defe defe naa mun nañ ne guléet la ci senegal guléet la ci senegal nguur yëkkati li muy yëkkati bu ko sotti ci nit ak ko munti doon mu ne lii duma ko nangu parce que dañoo respecté wul samay droit nguur ga dellu gannaaw ba la ñu bëggoon def sottiwul loolu nag jàngat gu bari lañ ci jàngat te ñu jàmmaloo it jàngat gu bëri lañ ci jàngat mooy projet bii nga xam ne ñun moom la ñu andi présenté ko Sénégalais yi ah am na fu mu toll Sénégalais yooyu fu sore sore sore ba ndaw ñi mag ñi jigéen ñi def projet boobu seen projet bopp mu jaral leen ñu xeex wala ñu sacrifié wu may wax ni projet boobu du Ousmane Sonko donte Ousmane ko am na ci solo ak fu mbir mi mun a mujj ak lu munti doon dafa am lu ñu ji te loolu meññ na li ci des mooy ñu mën a witti kon loolu kenn mënatu ko fay ci Sénégal moo tax ñun bu ñuy dugg ci projet politique dañu ne du projet personnel du parti unipersonnel waaye projet la boo xam ne ku patriotisme c'est-à-dire ku bëgg sa réew nekk sa dënn rek ku bëgg Afrique nekk sa dënn rek projet bi sa projet la seen taxawaay googu moo moo ñu may ñu nekk fii tey ba war a mun a wax ak sénégalais yi lu bëri am na waaye seen taxawaay boobu moo ñu may ba li tubaab di wax ni gagné nañu la premier manche mooy su doon match de football dañ naan premier mi bi gagné nañ ko ndax su ñu amul woon loolu. du ñu am jot gu ñu jàkkaarloog sénégalais di wax ak ñoom ba tey biir na ci bopp sénégalais yépp nag même ñu àndul ak ñun ñépp dëppoo nañ ni lii ab complot la suñu nangu woon ñu ta taftafee ñu noonu ñu ko bëggoon def kon du ñu egsi fii mu des nag naka lañu ñu war a doxalee li ñuy dëgmal ndax boo nekkee ci xeex jàkkaarloog ñoo xam ne foo natt doole seen doole weesu na ko ci xarala yi ñu yor ci alal gu ñu yor ci li ñu yor ci ay service moo xam euh, euh, euh, administration moo xam police moo xam justice moo xam leneen ak leneen ñu téye ko seen loxo moo xam it lu ñu yor ci ay moyens yoo xam ne mun nañ koo jaarale ci ay nit ñoo ñu dem toogal di toogal leen di leen wax loo xam ne dañuy fexe ba nërmal xelu Sénégalais yi li ma ni wax yéen Sénégalais yéen a ma ko gën a xam soo jàmmaarloog ñu mel noonu dafay laaj saa su ne étape boo toll nga taxaw xayma xool lu mu méngook démarche parce que xeex bi doole dina ko gañe de waaye li koy gën a gañe mi ngi jóge ci xel xeltu boobu nag nga xam ne. ñoo koy saxal te wéetuñu ci moo ñu andi ba ñu xool ni ñii ñu jàmmaar lool muy Macky Sall ak ñi mu ay taalibeem yi muy yónni ñu koy defal lan mooy objectif mooy dii lépp lan la ciy wut parce que loolu buñ ko leeralee rek lépp lu ñuy doxal ci xeex bi dinañu xam fu ñu koy teg ma tontu ni ñoom dañoo amoon li tubaab bi wax objectif principal mooy dañu amoon lu leen tax a jóg loo xam ne mooy seen yitte bi gën a rëy yitte boobu mooy lan mooy fexe ba ala kulli xaal 2024 Ousmane Sonko du doon candidat élection présidentielle li ma wax dafa am solo na ko ñëpp jàpp parce que suñu comprendrewul ñoom lu ñuy doxale rek. dañuy bàyyi xeexu xeex bi am solo bi nekk ci xeex yu ndaw ndawaan yi lay seen mbébét ñoom la leen tax a jóg ak leen tax a dugg ci lii lépp mooy nu ñuy fexe ba gàllankoor Ousmane Sonko ba 2024 fa ñuy taxawee di laaj réew mi moom du fa taxaw di ko laaj nañ ko defee woon ci gannaaw ak ñeneen muy Karim Wade ak xalifa Sall loolu rek mooy objectif bu objectif boobu weesoo am na lu tubaab jox objectif secondaire mooy loolu mooy seen farata ñoom am na peut-être sunna bu ci tegu mooy nañu fexe ba gàkkal ko ba tilimal ko ba sénégalais yi ne kii du nit bu baax ñaar yooyu mooy seen objectif bu njëkk ba nag moo leen gën a tere nelaw moo leen indi lii lépp boo xamee loolu nag ca doxalin bi ngay doxal dangay fexe ba may leen ñoom lu leen yombalal loolu moo tax ñetti fan yi ñu jóge déglu naa ñépp fu ne Sénégal nit woo na ma fa fu ne Sénégal nit jóge na fa mu jaral ko léeg mu taal otoom wala def délégation walla bokk ak association wala parti politikam am démb fii ci salle bii recevoir naa si waa opposition nga xam ne dañoo bokk ci FRN recevoir naa waa société civile ba ci tey la mujj ak ñoom Alioune Tine recevoir naa fi ay kilifa diine ñoom Mame Matar ak ñoom Abbé Jacques Seck naa fi euh, ay nit yoo xam ne bokkuñu ci benn kuréel waaye ñu Sénégal ñor la recevoir naa fi dégg naa fi wala woo nañ ma ci kilifa diine réew mi yëpp ñépp nag amul tarixa bi amul diine bi ci ay yóbbante yoo xam ne yegsi na ci man waaye ma doore ci li may wax li nga xam ne mooy li ci ëpp solo mooy ñi nga xam ne damay liggéey ñoom ñuy samay avocat parce que dossier bi nag dossier politique la téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi la waaye am na ñaar fukk yoo xam ne ci yoon la la ci war ci politique nag mooy li ñu def ba tey jii la ca war ci yoon mooy li ñuy liggéey ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci loolu muy suñu avocat toog nañu waxtaan ak ñoom ci ñaari réunion yu gudd gudd gudd muy dimanche bi passé ak tey jii ma déglu leen bu baax a baax a baax a baax loolu ñépp ñu ànd ak ñun képp ko ànd ak ñun dama bëgg loolu nga boole ko ci li war a tax tey ñu orienté suñu xeex ca lañu waxtaan la ñu jàpp mooy benn dossier bi ñu tax bi leen tax a jóg ñu ne dossier siif la dossier boobu dara newu ci dossier boobu juge ak nu mu jeng jéng jéng jeng bu ñëwee ba ci biir lépp dina feeñ wala lépp feeñ na ba noppi sax amul juge boo xam ne war naa mën a ne lii dinaa ci condamné nit loolu dàqantewul nag ak li ma wax bi may ubbi ni man wóoluwuma suñu justice waaye wóolu naa ay magistrat yoo xam ne dañ leen ni tànn ci biir waaye ñii suñu bëggee def seen yëfu salte depuis procureur moom tuddatuma ay turam comme mi ngi toppatoo sama ba ci toppatoo sama biir ménage di woo ay nit di wax lu jëm ci sama biir ménage procureur boobu mënatul assurer benn garantie ni procureur la république la yàkkamti gu mu yàkkamti woon xam nga gaynde gu xiif yàkkamti gu mu yàkkamti woon jot ci Ousmane Sonko moo indi vice de procédure yi am ci dossier bi yépp wala bukki bokk ndax sa jox wax ko gaynde sax day rëy waaye procureur boobu ba ci lañuy tànn ci juge d'instruction ba la ñuy tànn ci juge yu war a àtte état walla Macky Sall ak ay ñooñam bu ñu yëkkatee ab dossier loolu yëpp dañ ciy tànn ñu leen fay toggal ba defal leen li ñu bëgg a def moo tax dama ne li ma wax ni dàkkantew dàkkantul dàkkantewul ak li ma njëkk a wax waaye ñu dellu ci dossier bi ñoom li ñu jàpp mooy dossier bi dossier bu vidde la dara newu ci te li Sénégalais yi gisagum yépp jëm na ci côté boobu comme am dossier bi dara newu ci ñun am na benn piège bu ñu war a moytu benn ndëgg sërëxal mooy ñu may leen fu ñu créer beneen dossier ci biir dossier bi parce que loolu mooy seen bëbët yépp nag tey xam nañ ni dossier bi yëkkati nañ ko defe naa mujj naa dis ci ñoom suñ ko mënoon yebbeeku ko yebbeeku ko waaye dañoo ñëg ànd ak jàpp nañ ni bu leen biir rëccee dootuñu am fu ñu mën a jàppee Ousmane Sonko moo tax ñu continuer li ñuy def la ñu gis ñoom mooy bu ñu leen may fu ñu créer dossier ci biir dossier loolu mooy lan mooy tey bu ñu nee demuñu uyu ji def nañ ko benn yoon xeex ak ñoom yàlla am lu ñu ci may nun xeexuñoo ak ñoom ndax sama kër gi génnuma fi waaye ñi nga xam ne sopp nañ ñu te kenn joxu leen moo door ñoo jóg ma ñoo ne bërët jóg ne ñun ñëpp nañu daje ji kër Ousmane Sonko gis nañu lundi 8 li fi xewoon waaye tey bu ma dellu si ne dew ma ñu jël seen arme yépp yónni ko fii lañuy njëkk a def ma leeral ko ci bopp Sénégal yépp mooy ne dinañ ko kole li ñuy tuddee de rebelion rébellion mooy koo xam ne juge da la yónni convocation nga ne dew ma ñàkk dem nga ci jëm jëmm ji ne dew ma loolu du délit waaye bu ñu yónnee seen arme ne dem leen jël ko foo jaar même soo nee defuma benn résistance ñu fexe ba créer un de violence bu ñu wëlbatikoo dem ne dafa doon résister donc nañ ko coller rébellion bu boobaa nag lañ doon ut ci dossier bu njëkk ba te mënuñu ko am dinañ ko gaaw a am fii ndax flagrant délit lañ lay yóbbu àtte la def la 6 mois daal di taqal sa casier jeex na kon xeex bi léeg-léeg da ciy boole xel ndax ñoom bu ñuy def seen dëgg sa du doon benn dañ koy tal dañ koy lal ne bu rëccee ci biir dañu fexe ba am ko ci bii loolu nag mun naa ne door nañ ko may wax Sénégal yépp nag nii jamono ji ñu toog tembe gannaaw dossier bii ñu tudd muy dossier siif ubbi nañu beneen dossier boo xam ne nee nañu appel à l'insurrection mooy dañoo woote fippu fii kenn mosu fee woote fippu dañu ne bañ ñoo buggee jaay doole ci loo xam ne suñu àq la constitution may nañu ko dinañu bañ ñu nit ba fu suñu doole yam loolu kenn mënu cee attaque kenn au contraire ñoom ñoo def li ñuy wax délit de provocation waaye tey jii ci première cabinet bu Samba Sall ubbi nañ fa dossier bu ñu tuddee noonu ne dafa dañoo woote fippu ci dossier boobu la ñu jàppee ñaar fukk ak ñett ci suñuy ndaw ba tey ji ñu ngi ñu ngi euh, euh, Cap Manuel waaye bu ñu jàppee ñaar fukk ak ñett yooyu ba noppi dañu ne am na keneen koo xam ne dugalaguñ ko ñu tuddee ko x x dellusi na may wax sénégalais nag x boobu lañ ca jublu ñoom mooy Ousmane Sonko xam nañ ni seen dossier bi du sotti lañ ca jublu mooy wëlbatikuwaat gannaaw luy xew ci fan yii ci huitième euh, juge huitième cabinet bu dee la ñu bëgg a def sotti na te ñu am ci la ñu bëgg ñu gaawantu yokk ci bii ne egsi bu ñu doon wër moom la ndax moo woo xale yi ne leen génn leen kon ñépp nañu xam ni seen pexe yemul ci benn pexe yi dañ koo lal beneen ñetteel bi ñu doon waajal mooy suñu ne Ousmane Sonko neen du dem ñu indi fi GIGN wala BIP fexe ba jaxase affaire yi bu ñu génnee nag ne dafa doon résister moo tax dañ ko yokkal délit rébellion jugé ko flagrant délit dem tëj ko teyit toujours ci gis-gisu avocat yi mooy dem ak ñàkk dem benn résultat bi la mooy boo demul it dinañ fi yónni armée ñi fi nekk nañu résister peut-être wala suñu résisté wul xale yi dinañ jóge fële résister deret dina tuuru waaye yàgg yàgg yàgg da nga dem kon pour bañ leen may porox ndoll yooyu nga xam ne mun nañ ci jaar pour génne leneen loo xam ne loolu day yomb ci ñoom ni dossier bi jafe ci ñoom moo tax avocat yooyu ñoom ñépp bi ñu dajee ñëw taxaw ñaan ñu insister joxe seen conseil ñu déglu leen balaa may génn ci avocat dinaa leen jagleel ay remerciement jaajëfal leen ndax sonn nañ torop ci dossier bi bi mbir mi dooree ba léegi amul bëccëg amul guddi fii laa leen di woo ñu bàyyi seen yitte ma lim leen muy ma soxna kan Kane maître Ciré Clédor Ly maître si Ba maître Demba Ciré Bathily maître Youssouf Camara maître Joseph Étienne Dione maître Bamba Cissé maître Ousseynou Ngom maître Ndumbe Wan ak maître Djibi jaañ waaye it di remercier ñi nga xam ne toujours ci avocat yooyu bokk ci dossier bi waaye gën a sonn ci suñu ndaw yi nga xam ne jàpp nañ leen suñu jigéen yi nga xam ne jàpp nañ leen tey jii defe naa am nañ lu mat 53 muy juróom fukk ak ñett yoo xam ne ñi ngi ci loxo Macky Sall ñooñu maître Amadou Sow maître Babacar Ndiaye maître Abdoulaye Tall maître Théophile Kayosi maître Michel Simel Bass ak maître Magna Silva ma leen ni jaajëfal ci sama tur ci turu parti bi waaye ci turu sénégalais yépp mbokk yi gannaaw bi ma waxee li nga xam ne mooy taxawaay avocat yi ma dolli ci ni ñépp intervenir nañu wax naa leen di parti politique opposition yi daje ñoom ñépp fii ñëw ñaan ñu ko wax naa leen li nga xam ne mooy suñu kilifa diine yi ndax ñoom dañu wax ni ay régulateurs sociaux lañu wax naa ko ke ñu bari dañ naan nañu génn wax waaye am na fu ñuy waxee fu nit yéegut te it ormal seen bopp ñun ñu ñëwaat ormal leen moo tax li olof naan ku ndëbin yee rey sa maam bu dee da nga ñaanoon démb ñaan barki démb dégluwuñ la balaa ngay génnaat di wax di nga xool lu bari waaye yónnee nañu ci ñun ñoom ñëpp daje mu jaar ci suñu sëriñ sëñ abdu Mbàkke bu Daaru Muxti daa di ñëw wax la même chose may wax nit société civile bi def nañu la même chose suñu parti bi ñu bokk def nañu concertation département yépp ñu laaj leen lu ñu xalaat euh, diaspora bi ñu laaj leen lu ñu xalaat bureau politique bi wax li mu xalaat ay avis yoo xam ne lu partagé la waaye li ëpp ci avis yi am benn boor bu ñu jëm dinaa ci ñëw léegi ñii ñëpp nag li ma ci gën a touché man muy kilifa diine muy société civile muy keneen gannaaw bi ñu amee yitte ci réew mi li li ma gën a touché mooy seen yitte bi gën a rëy mooy li tubaab di wax sama intégrité physique mooy ñu bañ a maye fu ñu mun a jaaree pour li ñu bëggoon am ci justice sax boo moytul ñu amee ko ci neneen ndax dégg nañ fi kaawu Xaadim Bousso dégg nañ fa yeneen kaa te ci loo xam ne mën nañu gañe combat bi ci neneen ñooñu ñëpp mëne leen seen yitte ci ñun yéeg nañ ko te dafa ware ni projet bi nga xam ne moom lañu ñu présenté yi ñor na leen projet boobu seen projet la lii lépp nag moo tax ba ñu waxtaanee déglu ñépp ñu wax sénégalais yi ni bu soobee yàlla ëllëg ca waxtu bi ñu ko waxee dinañu génnee fii suñu kër dox ndànk dem déglu lan la juge huitième kabine war a wax ak nun waaye loolu tekkiwul ni dañoo deltu gannaaw xeex bi commencé gul sax te te tekkiwul it ni mobilisation bi bi exceptionnelle bi nga xam ne am na Sénégal te ñu gëjoon ko gis dina wàññeeku tey la mobilisation war a gën a bëri tey la mobilisation war a gën a am doole tey la militants yi ak militantes yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñépp dëgg rek moo leen ñor tey ñu war a gën a mobiliser parce que bu ñu buggee jaarale mbir mi feneen dina am neneen lu muy demee teyit tekkiwul ni li ñu waxoon ni suñu droit ñun à la résistance suñu droit individuel constitutionnel jóge na fi waaye tekkiwul ni lii nga xam ne am na ci dossier bi yépp te avocat yi wax ko député yi wax ko ba suba député yi nañu déposer recours conseil constitutionnel ñu war a signé signé nañu loolu lépp duñ ko bàyyi mu jaas parce que lañ ca war a def ci yoon danañ ko def muy fii muy CEDEAO muy feneen ak feneen may woo nag sénégalais yi ndax duma ko wax ak Macky Sall ndax ku am xol am yéeg yéeg ngay waxal ci lu jëm ci lu jëm ci nit ñi ñii nga xam ne jaay nañ leen doole muy suñu otage politique yi ne sénégalais yëpp addu na leen Macky Sall bàyyi rawatina nag ñi nga xam ne jigéen lañu tey jii dañoo fas yéene woon démarrer grève de la faim ndax ñu ngi leen di pamti pamti ku ñu jàpp àjjuma ba tey yóbbu leen delloosiwaat leen yóbbu leen delloosiwaat leen déglu sax defu ñu defuñu leen ko lépp pour métital lépp pour métital loolu taal na ay réew yu bëri parce que jaay doole ci anam yi baaxul man maa leen ñaan leen bu leen grève de la faim ndax dama bokk jàpp ni bokkul ak suñu gëm-gëm waaye li gën a garaaw mooy ku tollu ci xeex danga soxla sa doole waroo affaiblir sa bopp te am naa ñëwante bu rëy ci ñoom nag. ndax dama koy natt ci sama bopp moo tax ma ñaan leen ko waaye du lu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu bëgg a génne ci xeex bi may wax tamit suñu police nationale wax naa ko keroog ci sama discours police bi ñun ñëpp la fi nekkal am na lu xew fii keroog sama kër te duñ ko bàyyi ndax def naa def nañu lettre démenti retiré waat ko lu toll police nationale ñu war a jël jumtukaay yoo xam ne tey waroon nañ ko yóbbu ci xool ni ñuy xeexee sàmba booy yi ni ñuy xeexee terroriste yi ñu ñëw teg ko ci buntu kër Ousmane Sonko di ko espionné di ko filmer moom ak ay njabootam ak képp ku dugg ci kër gi ak ku génn ci kër gi loolu rafetul ci Sénégal te du kenn ku leen yónni ku dul Macky Sall ci dossier boo xam ne nee nañu doote dossier privé la bi loolu amee ba tey harcelé nañ ñu menacé nañ ñu dañuy ñëw par force dugg ci kër gi parce que dañoo am jumtukaay bu ñu ñàkk bu ñu bu ñu bu ñu wàcc fii keroog te il faut ñu jot ko bi ñëwee fii nee naa leen gisuñu jumtukaay boobu. loolu doyul yónnee nañu ay médiation waaye ba tey ñi ngi ca loolu ñun nag dinañu constater par voie d'huissier su jaree ñu porte plainte police nationale dañ ko def xam naa ni police nationale wax naa ko keroog ay patriotes ñoo ci nekk ñoo ci ëpp. waaye les gradés de la police lay wax bu leen nangu ñu joué leen rôle boobu compétition politique c'est entre les acteurs politiques suñuy jumtuwaay réew bu ñu ko jël di ko boole ci compétition politique day indi compétition déloyale Macky yor police yor gendarmerie yor lépp war a jàmmaarloo ñoo xam ne seen parti rek ak seen discours loolu rafetul ci réew mi la tax nag ñuy insister ñoom xam nañu ñun xam nañu bu ñu wax loo ngir yàlla waaye loolu dafa doy nañu bàyyi di utiliser moyen état bi di espionner ay citoyen tey amul benn citoyen sénégalais boo xam ne yaa ngi ci sécurité ñépp Macky mu ngi leen di espionner ñépp nag waxuma la sax ku ne ànduma ak moom waaye ñi mu àndal sax mu ngi leen di espionner ba kañ dañ koo dénk lii pour mu tabax réew mi na yem ca loola di wax tamit nii Sénégal amul kenn koo xam ne tey umple nga umpale nga ni lii complot la ak manipulation médiatique bi ñu def yépp chargé plateau yi lu ne ñu wax ko tey soo jëlee sénégalais téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nee nañ la lii complot la te bu nekk nag yàlla tojal leen lu bees loo xam ne foogewuñ ko woon ba tey ku déglu live Pape Alé bi keroog bi may wax junj naa ne laaj leen Macky ndax xam na aji Sarr seede bi tey ñëw na ndax xam na ko moom Macky Sall ndax recevoir na ko en tout cas génn ci ñu Adji Sarr ni moom Macky Sall recevoir na ko te benn autorité APR moo ko fa yóbbu ci li mu leen wax moom mi ne moom amul taaw comploté moo wax sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président la république ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawe loolu fës na tey fi may daanelee nag mbokk yi mooy di gën a soññ yéen ñëpp ma leen gën a soññ xeex bi ñun de mun nañ ci ñàkk ay dunq waaye Macky Sall dina ci ñàkk nguuram ci nii walla ci nële dugg na ci loo xam ne amul tey benn sénégalais bu ko nangu wala bu ko rafetlu amul kon lu ñuy xeex la ba fu xeex bi yem. waaye xeex bi nañu xam ni ay temps la xeex bi ay stratégie la xeex bi dafa am fu mu jotee foo xam ne lu mu laaj rek ñu xam ni lii la laaj moo tax ma ne mobilisation mobilisation mobilisation mooy nañu takku nañu takku nañu takku fu ñu doon nekk benn nañ fa doon téeméer fu ñu fa doon nekk benn ci mobilisation nañ fa doon téeméer di gërëm nag mouvement citoyen yi également ñi nga xam ne ñëw nañu muy ay FRAPP Y'en a marre euh, euh, docteur Babacar Diop FDS ak euh, Doyna ak Ñoo Lank tous ces mouvements citoyens parti politique yi nga xam ne jël nañ seen initiative ba démb am nañu ci def conférence de presse ñoom docteur Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Bamba Dieye ñoom Bougane ñëpp ak ñi vraiment tous les partis politiques su ma limee rek ñi taxawoon assemblée nationale lu ne ñu daj ci lu ne ñu daj ko ci ñoom ñëpp nag député opposition yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ne leen nag mobilisation bi ça ne fait commencer mbokk yi lii laa bëggoon andi ci sama déclaration di ko faram-fàcce ci français ci nu mu gën a gaawee euh, daal di yeewi ñëpp ndax euh, defe naa mi ngi commencer guddi. Chers compatriotes, euh, je me permets de m'adresser une fois de plus à vous. pour vous édifier sur ma position par rapport à la situation actuelle. Je commencerai par rappeler les sages recommandations euh, d'un ami que j'ai à recevoir ici et qui m'a donné deux recommandations. Dans les circonstances actuelles, tous ceux qui te diront de te taire et de ne pas parler ne sont pas avec toi. Mais tous ceux également qui te recommanderont de faire confiance à la justice ne sont pas avec toi. Il a parfaitement raison. Il faut communiquer pour édifier l'opinion à chaque fois que nécessaire. Il faut communiquer parce que ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, mais l'opinion a besoin d'avoir des arguments. Chacun fera l'interprétation qu'il veut, le traitement qu'il veut, mais il faut communiquer, mais ne pas laisser communiquer à votre place particulièrement la contre-communication. Il a raison parce que nous savons de quelle justice on parle dans ce pays. Et il est exceptionnel, pour ne pas dire, on n'a jamais vu un dossier politique tranché par la justice dans, le sens, dans un sens différent euh, de celui de, du vouloir du prince, quel que soit le prince qui est là, mais en l'occurrence aujourd'hui, M. Nous ne croyons pas à cette justice, mais nous croyons à certains magistrats. Il y a des magistrats sérieux, compétents, qui font correctement leur travail. Mais il est évident que lorsque le tenant du pouvoir entreprend un complot de cette nature, il s'assure de placer sur toute la chaîne judiciaire des gens capables de lui faire le sale boulot. Quelle que soit la qualité de votre dossier par ailleurs, Je voudrais dire à tous les Sénégalais, ça transcende les militants de PASTEF. Parce que ceux qui sont mobilisés le lundi 8 ici ne sont pas seulement les militants de PASTEF. C'est le Sénégalais lambda. C'est le Sénégalais qui appartient, n'appartient à aucun parti politique. C'est le Sénégalais de tel ou tel autre parti politique d'opposition. C'est le Sénégalais de la société civile. C'est le Sénégalais de, des mouvements citoyens. C'est même le Sénégalais religieux. détestent et combattent l'injustice ont fait ce mouvement spontané pour venir dire non à cette injustice. Et cette, cette posture que vous avez adoptée nous a permis de gagner énormément de temps. Cette posture que, nous, que vous avez adoptée nous a permis d'être là aujourd'hui à continuer à édifier les Sénégalais. Je vous en remercie énormément. Cette posture nous a permis de gagner la première manche. parce que n'eût été votre engagement, votre détermination, mais votre mouvement spontané de ce jour, je n'aurais jamais eu la latitude et le temps qu'il fallait pour communiquer avec les Sénégalais et pour démontrer le complot. Je vous remercie pour cela. Quelle démarche devons-nous tous adopter à partir de, maintenant Quelle stratégie devons-nous adopter à partir de maintenant C'est ça l'objet de cette présente déclaration de presse. Pour définir cette attitude, il faut partir de l'analyse de l'objectif recherché, la définition de l'objectif recherché par notre vis-à-vis, par notre adversaire, qui par endroit se transforme même en un ennemi. Quel est l'objectif de Macky Sall dans tout cela Macky a un objectif principal, c'est de radier Ousmane Sonko des listes électorales et d'éviter de l'empêcher en tout cas de pouvoir se présenter à toute élection à venir, mais particulièrement et singulièrement à l'élection présidentielle de 2024. Il a des raisons de le faire, puisqu'il a tous les sondages, il a les services de renseignement qui lui donnent tous les renseignements qu'il faut. Il sait pourquoi, impérativement, il lui faut se débarrasser de cet adversaire. Et justement, la tournure qu'a prise cette affaire la démonstration de force qui a été euh, faite par vous tous, renforce dans sa crainte qu'il a en face de lui un adversaire s'il se présente à une élection en 2024, et même s'il se présente euh, dans des listes euh, dans, lors pour les prochaines élections locales et législatives, est un adversaire qui pourrait facilement le battre. Et c'est il faut qu'on comprenne quelle que soit la situation, et malgré l'évidence qui s'est faite aux yeux de tous les Sénégalais d'un complot ignoble, Macky Sall ne reculera pas parce qu'il considère que s'il rate cette occasion de se débarrasser de cet adversaire, il n'en aura plus d'autres pour euh, euh, se rattraper. Alors, ça, c'est son objectif principal, qui est à un objectif secondaire, celui-là de jeter l'opprobre, de jeter le discrédit sur l'image de, cette, de cet euh, opposant, de cet adversaire, en l'occurrence Ousmane Sonko. Il faut bien qu'on campe cela, chers compatriotes, parce que ça va nous permettre de définir notre stratégie dans ce combat. Parce qu'il n'est pas question, mais absolument pas question, que Macky Sall puisse atteindre cet objectif. Il n'est pas question que nous lui permettions allègrement, librement, euh, mais sans aucune résistance, que nous lui permettions de pouvoir écarter les adversaires politiques comme il, il à, à, à son gré. C'est aujourd'hui cela qui doit orienter, guider toutes les actions que nous allons poser à partir de maintenant. Et c'est pourquoi j'ai écouté tout le monde. J'avoue que depuis trois jours, je n'ai cessé de recevoir, du matin à la nuit, je n'ai cessé de communiquer, d'écouter les gens au téléphone. Tous les segments la société ont eu à m'interpeller d'une manière ou par rapport à la situation Mais je commencerai par la position la plus centrale, la plus importante dans ce genre de que nous avons un dossier, certes, à 80 ou 90% politique, mais qui peut être à 20 ou 10% judiciaire. Et quand on parle d'un dossier judiciaire, on parle d'avocats parce que c'est les hommes de l'art, c'est les hommes du métier. Et c'est pourquoi je me suis permis de m'entourer, avec le soutien de tous les Sénégalais, d'avocats euh, euh rompus à la tâche. Et quand on prend des conseils, on les écoute. Nous avons tenu deux longues réunions ici, dans cette salle même, avec ces avocats, le dimanche passé et aujourd'hui même. La position de ces avocats c'est de dire un nous avons un bon dossier de viol qui sera facilement démontable devant toute juridiction. Ce que je dis là n'est pas contradictoire avec les propos de l'introduction, c'est de dire que nous ne faisons pas confiance à la justice. Mais ça ne nous empêche pas de dire, quand des avocats se saisissent d'un dossier et l'examinent, de dire que nous avons un bon dossier. Et que Nous pouvons nous battre sur ce dossier. Malgré tous les vices, je n'ai pas besoin d'énumérer tous les vices, ça a fait l'objet de tellement de débats. Euh, les députés en ont parlé, les avocats en ont parlé, les professeurs de droit en ont parlé. Nous avons suivi les plateaux. Beaucoup de tentatives de manipulation et de détournement, mais par la grâce de Dieu, les gens ont pu démontrer tous les vices qui existent depuis la lettre du juge d'instruction jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire et même la convocation qui n'a pas attendu le délai minimum, minimal, euh, minimum prévu dans ce cas d'espèce pour euh, permettre éventuellement des recours. Ce recours que feront d'ailleurs demain euh, les députés de l'opposition qui ont déjà préparé le texte et qui ont eu les, les, les, les signatures qu'il faut. Mais nous continuerons à, à à nous battre contre ces vices et tous les recours qui devront être faits au niveau national comme international seront faits par les avocats. Donc, premièrement, la vacuité du dossier. Deuxièmement, quand on a un dossier bon, il ne faut pas donner à l'adversaire la possibilité de créer des dossiers dans le dossier. C'est ça qui est recherché. Et que si je ne déférais pas la convocation demain, La conséquence logique, c'est un mandat d'amener, peut-être, mais l'armée qui sera envoyée pour venir ici peut trouver une résistance, même si moi je ne résiste pas. Mais, mais aujourd'hui, les Sénégalais se sont appropriés cela. Je n'avais pas appelé le 8 pour que les gens sortent, mais ils sont sortis spontanément. Et avec la moindre résistance, ou même en l'absence de résistance, ils vont la fomenter. Ils pourront sortir pour nous mettre sur le dos un autre délit, c'est-à-dire la rébellion. Et ça, c'est un jugement direct en flagrant délit, une condamnation à six mois, et le cas judiciaire est complètement euh, euh, sali. Et c'est ça l'objectif recherché, je l'ai dit. Et donc, dans notre stratégie, ce ne serait pas intelligent de leur offrir cette opportunité. Je tiens à dire à tous les Sénégalais, parce qu'il nous faut être vigilants. Nous avons en face de nous des malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Et qui, dans sa stratégie, développe plusieurs pièges en même temps. En se disant que s'il échappe à celui-là, il tombera dans, dans, dans, tel autre piège. Et l'autre piège, je peux vous dire à tous que, au moins je vous parle, le juge d'instruction du premier cabinet, du premier cabinet, M. Sambassal, à la suite des, des manifestations du 8 février, il y a eu un, pas mal d'arrestations. Aujourd'hui, on a 23 jeunes à Dakar et 13 à Ziguinchor qui ont été interpellés. Et le le motif qu'on leur a collé, c'est, entre autres, à part association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, ils leur ont mis appel à l'insurrection. Ils ont mis les 23 plus X. Et à Ziguinchor, ils ont mis les plus X. Et depuis lors, nos avocats font le pied de grue pour que ces jeunes soient entendus. Le juge du premier cabinet refuse parce que qu'est-ce qu'il attend Il attend que la procédure concernant Ousmane Sonko soit déclenchée pour qu'ensuite on dise que X est Ousmane Sonko. Et à partir de ce moment, ce dossier de viol qui est un dossier vide sera remplacé par un dossier sur l'appel à l'insurrection. C'est pourquoi ils ont fomenté dans une certaine presse tout un sur l'appel à l'insurrection depuis quelques jours. Il nous faut être vigilants et il nous faut être prêts à faire face à ce nouveau forfait, en tout cas cet éventuel forfait, qui viserait à rattraper le coup puisqu'ils l'ont raté avec le, le, complot ignoble de Macky Sall. Donc, puisque y aller demain et ne pas y aller, le résultat sera le même finish. Parce que nous pouvons résister éventuellement, mais nous ne pouvons pas résister ad vitam aeternam à toute une gendarmerie, toute une police et toute une armée. En tout cas de cause, la raison voudrait qu'on aille répondre demain. C'est ça la position des avocats. Je me permettrai de remercier tous ces avocats. J'y tiens particulièrement parce que j'ai travaillé avec eux depuis plusieurs jours et je sais tous les sacrifices concentre pour defendre ce dossier, pour y travailler, pour préparer tout ce qu'il préparer. Il s'agit de Maître Massokhna Kane, Maître Siré Clédor Ly, Maître Khoureysi Ba, Maître Demba Siré Bathily, Maître Youssouf Kamara, Maître Joseph Étienne Dione, Maître Bamba Cissé, Maître Ousseynou Ngom, Maître Ndoumbe Wane, Maître Djibi Diagne, Amadou Sow, Maître Babacar Ndiaye, Maître Abdoulaye Tall, Maître Théophile Kayosi, Maître Michel Michel Simel Bass, Maître Magna Silva ceux qui travaillent quotidiennement dans le dossier principal qui nous concerne, comme ceux qui se sont donnés les moyens d'être présents à chaque fois qu'un militant ou une militante est arrêté, à chaque fois que quelqu'un est, même ceux qui ne sont pas nos militants et qui nous soutiennent, je veux parler des Guy Marissagna, des Damboj, euh, des Clédorsen, tous ces gens-là, à chaque fois qu'il y a une arrestation, ces avocats sont donnés les moyens d'être pour qu'on ne les entraîne pas dans euh, des déclarations qui pourraient se retourner contre eux. À part les avocats, toutes les autorités de ce pays, tous les segments, j'ai parlé des autorités religieuses. J'ai reçu toutes sortes de délégations ici dans, dans cette salle. La dernière en date, c'est la délégation conduite par Djamra de Mamatar Gueye, Abbé Jacques Sec et beaucoup d'autres religieux. j'ai reçu des interpellations, des gens qui ont été envoyés par ces guides religieux, qui ont conclu tous à la même demande, euh, non pas seulement pour l'apaisement, puisque l'apaisement ne dépend pas de nous, je le précise encore, ça dépend particulièrement de Macky Sall et de ses comploteurs, mais qui se sont souciés, et cela m'a touché au plus profond de moi, qui se sont souciés de mon intégrité, physique, de mon intégrité morale, ce qui les a amenés à exprimer leurs demande Je les en remercie. Les partis politiques d'opposition, j'en ai reçu ici hier dans le cadre du FRN. La société civile, le dernier qui est sorti d'ici et M. Aluntine. Et un nombre incalculable de citoyens de tous bords qui m'ont interpellé depuis trois jours pour insister et nous demander euh, d'aller dans un sens. notre propre famille, mais notre parti politique, qui a ouvert depuis hier de larges concertations avec les 45 départements, la diaspora et le bureau politique. Il peut y encore des réticences, mais l'écrasante majorité est allée dans un sens. Tous, en tout cas, ont compris que à chaque étape de ce combat, faut adapter une l'ensemble de ces recommandations qui nous ont permis d'aboutir à la décision que j'annonce que demain, à l'heure euh, continue dans la convocation, nous irons répondre, écouter le juge du premier cabinet. Mais cela ne veut absolument pas dire une abdication. Et j'appelle tout le monde à rester mobilisé parce que nous n'accepterons, mais absolument pas, aucune injustice, aucun forfait, aucune forfaiture par rapport à la gestion de ce dossier. Je dirais également, je continuerai les appels en appelant toutes les composantes de la nation. Et en première, les femmes. Les femmes, parce que 17 femmes aujourd'hui sont retenues par Macky Sall. 17 femmes qui n'ont rien, absolument rien fait ci ce n'est de se déplacer pour se rendre au domicile de Macky Sall. 17 femmes depuis 4 jours maintenant, depuis 6 jours maintenant, sont retenues et malmenées. On le refuse même d'avoir des draps ou qu'on leur amène de petits lits. Elles dorment à même les, le sol, les carreaux, là-bas au commissariat de Dieppel. Et depuis deux jours ou trois jours, elles sont ballottées entre le tribunal et le commissariat de Dieppel avec des euh, retour, retour de parquet. Cela, ce n'est pas de la justice. Serigne basiru Gueye le fait sur prescription de Macky Sall uniquement pour faire mal à des adversaires politiques. Antoine Diom le fait uniquement pour essayer de régler des comptes parce que on interdit même les visites. Moi, je me suis déplacé le vendredi pour leur rendre visite là-bas au commissariat de Dieppel. On m'a interdit l'accès aux locaux. Des députés, les mam Mamdiara femmes, les Aïssata Sabara se sont rendus là-bas, on leur a interdit l'accès aux locaux. Cela est inadmissible. Et j'en appelle à tous les segments de la société. Je ne parlerai pas de Macky Sall, parce qu'il faut avoir un cœur pour qu'on puisse vous interpeller. Je parle à tous les segments de la société. Ce qui se passe est inadmissible. J'interpelle notre police nationale. Quand on dit nationale, ça veut dire que ça appartient à ça appartient aux 16 millions de Sénégalais. Chacun de nous a les mêmes devoirs. La police n'est pas rémunérée par Macky Sall, elle est rémunérée par nos impôts. Elle doit rester à équidistance. Ce qui s'est passé ici, à mon domicile, le jeudi passé, est inadmissible. C'est-à-dire qu'on déploie des moyens les plus sophistiqués de l'État pour venir espionner un adversaire politique. Je maintiens mes accusations contre la police nationale. Et on en a les preuves et ils le savent. On en a les preuves, ils le savent, parce qu'on a les enregistrements, on a les vidéos, on a tout ce qui a été filmé ici. Que cette police nationale puisse se déplacer pour venir espionner un adversaire politique, mettre ici une fourgonnette qui filme 24 heures sur 24 ce qui se passe dans ma maison et qui intercepte tous les sons émis à partir de maison, c'est inadmissible. Et ça, c'est Macky on, est, a accusé un, un, recul extraordinaire dans ce pays avec Macky Sall. Et s'il y a un Sénégalais qui pense qu'il peut échapper à ça, s'il y a un Sénégalais qui ne se sent pas concerné, c'est qu'il se trompe. Tous les Sénégalais sont en danger parce que tous ceux qui diront que je ne réfléchis pas comme Macky Sall, je ne je n'exprime pas, pas les mêmes opinions que Macky Sall, sont systématiquement écoutés, traqués, piégés, manipulés pour, pour, pour avoir des ennuis judiciaires. il faut aujourd'hui que chacun et chacune d'entre nous en soit conscient. Même les guides religieux sont espionnés dans ce pays. Que tout le monde le sache. Et cela est inadmissible parce que c'est une violation de la Constitution. La propriété privée, les données personnelles. Il y a des lois pour ça. Mais Macky Sall n'en a cure dans cette obsession de se maintenir au pouvoir. Je le, je le dénonce, je le regrette, et nous donnerons les suites qu'il faut. Parce que depuis des jours, on est harcelé ici. Nous avons été menacés d'une intrusion musclée de la police pour venir récupérer soi-disant un matériel qui serait perdu ici. Nous avons ensuite eu des émissaires qui sont venus négocier. Nous n'avons pas vu de matériel ici, je le dis. S'ils viennent, ils ne trouveront pas de matériel ici parce qu'on n'en a pas vu. Ils n'ont qu'à dire aux Sénégalais quel matériel ils ont pu perdre L'éclatement du complot, j'en terminerai. Je n'ai plus besoin de donner des éléments. 90% des Sénégalais sont convaincus et conscients que c'est un complot de très bas niveau. Ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils ne pouvaient pas établir, c'est jusqu'où il y a la chaîne de responsabilité. On a parlé de la fameuse avocate. Aujourd'hui, on a des preuves supplémentaires de son implication jusqu'au cou dans cette affaire-là. Et de son mari également. qui est ministre dans ce pays-là. On a toutes les preuves de ces implications-là. Et on exigera ce qu'il faudra pour que la justice fasse ce qu'il a faire, le moment venu. Parce que beaucoup de gens nous disent pourquoi vous n'avez pas contre-attaqué. Après discussion de nos avocats, nous avons considéré que le mois viendra. Parce qu'on ne peut pas leur donner certaines opportunités. Mais les gens ne savaient pas que ça va beaucoup plus loin. Je l'ai dit J'ai les Sénégalais non qu'à posé une question très simple à Maki. Est-ce qu'il connaît Adjissar Ceux qui ont écouté aujourd'hui le live de Pape Allais et le témoignage y contenu peuvent maintenant répondre eux-mêmes à cette question. C'est que Macky Sall aurait reçu même Adjissar de la bouche de cette dernière, l'aurait reçu parce que celle-là lui a... En réalité, on est dans une grande entreprise de manipulation au, au finish, je me dis, est-ce que ce n'est pas les manipulateurs qui ont été manipulés par cette jeune fille Je dis aux Sénégalais, Macky a dit à RFI qu'il n'a pas le, il a autre chose à faire que de comploter. Je vous dis qu'il est le comploteur en chef et que c'est lui qui tire les ficelles de bout en bout de cette affaire-là. Enfin, je lancerai ou je relancerai cet appel à la mobilisation. de tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Dans ce combat, nous pouvons perdre des plumes, mais Macky peut perdre son pouvoir. Tout dépend du peuple sénégalais. Est-ce que ce peuple peut accepter que celui qu'ils ont élu aux plus de responsabilités de ce pays, à qui ils ont donné tous les moyens pour transformer leur vécu, pour améliorer leur vécu, passe l'essentiel de son temps à espionner, à comploter contre ses adversaires politiques Est-ce qu'ils peuvent accepter que la seule règle qu'ils connaissent par rapport à la conservation du pouvoir, ce n'est pas la règle de la confrontation des opinions et des idées, la confrontation des programmes dans le cadre d'élections libres et démocratiques, mais la seule règle qu'ils connaissent, c'est la règle de, du complot pour liquider des adversaires politiques. Est-ce que les Sénégalais vont continuer à accepter ça S'il si euh, il parvient à, à, à ses fins avec Ousmane Sonko, ce que les Sénégalais peuvent accepter un Si chacun, ceux qui ne se sentent pas concernés, qu'ils ne reviennent pas demain après pleurer. Lorsqu'il aura éliminé toute opposition, il déroulera en roue libre et il instaurera une dictature totale et totalitaire. C'est ça qui se joue en, actuellement et cela interpelle chacun et chacune des Sénégalais. Ceux qui étaient déjà dans la mobilisation, renforcez cette mobilisation. Ceux qui n'y étaient pas, rejoignez cette mobilisation parce que nous avons un combat à gagner Et ce combat, c'est le combat pour le Sénégal, c'est le combat pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas un combat pour Ousmane Sonko. Je vous remercie.